Orange Sonatel tax na ba internet egg fépp si ñëpp si ay njëg yi gën a yomb si Afrique. Avec vous, pour vous, Sonatel. Orange benn waxtu jot na. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun RFM benn waxtu ci studio Eva mbay bismillah ci xibaar yi. njiitu réew mi Abdoulaye Wade ay kàddoom jëm ci élection anticipée yu mu noppee def Moustapha Niass gëmul lu ni mel mu santu politique rek la ko jàppee ay kàddoom keroog 14 juillet it mu ne dug solo gumu ca tënkee ca Paris la ñu jokkoo ak moom njiital AFP di ngeen ko dégg ci xibaar yi. élection anticipée yooyee terewul ab président buy fégal bokkaat cee jongante gis-gisu constitutionnaliste bi di Mounir si waaye moom jàpp na ne Abdoulaye Wade taxul muy wax ndax gis na ni ci wàllu woowu jeexal nay balam. soxna Aïda Mbodj di wéy di sàkku dellusiwaat su Macky Sall ci PDS ndax place ma nga fa ba tey mu ne fitna gi jëmee ci jigéen ñi ba tey Louga dañ ko fay doxalee tax mbootaay jóg ngir gindi gune yi jigéen ñi ngeen baal ma ci ñu gën a xam seen ak ak yelleef maatam moom nawet geeg taw bi moo fa taxawandi jaaxal baykat ya donte borom xam-xam yene du dara maanaam jaruta tiita tàggat yaram Malal Junior jaañ nataal bi tey maître Aliou Sow lañ leen di xameleel moo jiite conseil national de la jeunesse Euh, ci yéen gannaaw yéenekaay yi invité grand format di waxtaan wi ci lu yaatu Abdoul Aziz pay lay doon moo jiite MRS mouvement républicain sénégalais waxtaan wi ak soxna Binte Diallo Abdoulaye Diop ci machine bi. Assane Gueye Moustapha Niass kàddu yi Abdoulaye Wade ci élection anticipée yu mën na moo def gëmu ko mu santu politique la ci weneen wàllit ay kàddoom keroog 14 juillet du solo gumu ca tënkee njiital AFP ca Paris Moustapha Niass jokkoom ak Antoine Diouf Wade discours bi li ñu ko doon xaar moo di mu wax ni jiwu gerte bi jiwu mboq jiwu dugub engrais bii nga xam ne ñu ngi koy xaar parce que muy commencé taw Sénégal ak itam gerte gi ci ban njëg lañ ko mën a jëndee pour nit ñi mën a seet ndax dinañ bay gerte lu doy wala jarul ñu béykat yi ñu bay dugub rek. ñu ko doon xaar ci problème université Dakar université Ndar Géej université Ziguinchor centre régional universitaire Bambey Diourbel ak yooyu waxu ci dara. ñu ngi doon xaar mu wax ni naka la mën a fexee ba bi nga xam ne ñooy dundal étudiant ci site universitaire yi. université yi nekk Sénégal yëpp su fay ñu leen ñu ngi leen ay milliards yoo xam ne tax na léegi bu ñu demee ba ci kanam étudiants yi dootuñu sax amatu lu ñu lekk parce que ñeenti sociétés yooyu dégg na dañu arrêté dootuñu toggal étudiants yi. ci foofu lañ doon xarab lay wat waaye mu di wax ay wax yu cokkeer ay waxu kaccu kaccu ay wax yoo xam ne waxu picc la loolu dafa grave trop parce que Ablaye dafay font le 23 juin bii devant l'Assemblée nationale moom moo di wax opposition dañu ragal mais ñoo nekkoon ci kanam moom wax ne ñun l'opposition ragal la opposition salon lañu ñun ñoo nekkoon xeer boobu ma yoroon man dañoo ko sànni ci bopp Abdoulaye Wade nee na noppi na organiser élection présidentielle anticipée lan mooy sa xalaat ci mbir mi Abdoulaye Wade moo gën a xam ne même bu doon juróom-ñetti fukki fan ñu ci def élection ndax parewul moom ci boppam parewul à moins que xëy na moom mu jàpp ne li nga xam ne tëral na ko pour nekk ko pour mën a jël élection yi randal ko def li mu defoon 2007 mu mu pare ci loolu mais li wóor moo di même loolu bu amoon même loolu bu amoon jafe na mu am Abdoulaye Wade dafa obligé démissionner ci présidence de la république il est candidat comme ñëpp te candidature am boobu constitution may ko mu def ko Moustapha Niass Antoine Diouf a jokkoo ak moom ca Paris moom jiital AFP ci weneen wàll nag ñeel élection anticipée président ba ciy démissionné yoon terewu ko bokkaat ci jongante yëpp mooy gis-gisu constitutionnaliste bi di Mounir Sy donte Abdoulaye Wade taxul mu wax daa gis ne moom jeexal na ci wàll woowu kon nepp sañ-sañ ñeel jongante yeneen Mounir Sy ñu anticiper ñu bañ anticiper mënul nekk candidat parce que droit bi nga xamante ni moo tënk réew mi constitution bi moo wax ni ci gagné 2000 gagné waat 2007 bu 2012 mënul nekk candidat te kooku mi ngi tudd Abdoulaye Wade looloo tax ñu ni mu anticiper mu bañ a anticiper moom moom mënul bokk li ñuy wax kañ mooy bu fekkoon nii benn mandat rek la def ñu am élection anticipée élection anticipée pour mu am il faut que njiitu réew mi yàlla moom ko wala feebar ba mënul la yore réew mi wala mu démissionné léegi bu démissionné nag ci constitution bind ñu fenn wax ni président bu démissionné bu ñu euh, defaraatee élection xereñ mun ñu nangu ni ku démissionné jaratul nga ñëwaat ndax yaa démissionné yow yaa ni bàyyi nga dem nga ñu bu ñuy créé waat élection kañ luy waral nga mën a ñëwaat loolu xel mënu ko nangu sax waaye nag droit dañu wax ni lu la yoon terewul may na la ko yoon terewul mu nekk candidat donc mën naa nekk candidat mais bu nekkee Ablaye Wade mii la nag moom yoon mayu ko sax muy nekk candidat même bu ñu def anticipation ñu bañ a anticiper te nag dafa am solo te ñi bàyyiwuñ ci xel dafa ni yàlla rek tax yàlla rek a téye mu bañ a nekk candidat mooy conseil constitutionnel lu mën a rendre comme décision moom yoonam nekk même bu ne tey du nekk candidat moom day nekk candidat parce que loolu mu neex si xereñ ci wàllu chartam réew soxna Aïda Mbodj bokk ci PDS di jëwriñ junu dénk njaboot gi mbootaay jigéen ñi naka noonu di wéy di yéene ko ñaan delluwaasu ko Macky Sall ci biir PDS ndax moom jàpp na ne premier ministre ba woon place sama ngi ba tey ci PDS mu ngi ko xamle soxna Aïda Mbodj ca Fatick doon ci kaw juróom-ñetteelu bu tournée bu mu amal ci réew mi ñett ci département bu Fatick waxtaan ya bokkoon na ci wàllu yàq gi ci jigéen ñi wàllu parité waaye te éducation di yar ak njàngum guney jigéen ñi Youssouf Bodian lenn ci lu gënoon am solo ci tukki nemmeeku ministre d'État ay Mbodj ci siin doon forum bi dajale ay jigéen yu bàyyeekoo ci ñetti département région bi jigéen yooyu la jot fa présenté ay rapport ci ay thèmes yu wuute Gosaas wax ci mbiru yàq bi ñu nemmeeku ci xew yi ki yoroon kàddu jigéen yooyu lay ñaawlu ni jigéen ñi mënulee njëriñoo ni mu waree lu tukkee seen liggéeyu faw ñu xoolaat bu baax loi bi tere lépp yu yàq ci xew ci mim réew ngir ñu mën ko doxal ni mu waree jigéenu Foundiougne yi moom wax ci mbiru parité thème bu xew ci jamono waaye ci seen gis-gis ngir ñu mën ko amal faaw ñu yemale góor ak jigéen ci njàng mi sukkali alphabétisation waaye tamit duggal xale yi jigéen ñi lekkool fexe tamit ñu des fa ci mbiru njàngum xale yu jigéen yooyu de sax la jigéenu département Fatick addu li mu xale yu jigéen yuy dugg at mu ne lekkool néew na ci région bi sunu sukkandikoo ci ki wax ci seen tur lu bëri ci xale yu jigéen yooyu le seen njàng du yegg ndax ay ëmb walla sëy bu teel waaye tamit ay jafe-jafe yu ñenn ci ñoom di jànkoonteel ci kër yi leen di dalal ngir bañ ñu bëri ci xale jigéen yooyu di dem mbindaanu ji ci dëkku taax yi jigéenu Fatick yooyu sàkku ngir ñu tabax ay école yu leen jege waaye tamit affecté ay assistants sociaux ci école yi Aïda Mbodj bi ñu fa jógee dem jëbbal ay attestation lu ëpp ñaari fukki assistante administrative promotion bi njëkk bi moom lañ ko ndeylee xale jigéen yooyu la ñu tàggat leen ci wàllum informatique gestion comptabilité leadership féminin ak yeneen xeetu xam-xam tàggat bi ñu amal ko ci diiru juróom-ñaari weer ca SEDAF bu Fatick li ko jiitu ministre Aïda Mbodj jot na nemmeeku cas foyer bi fi nga xamante ne jot nañ fa exposé ay meññeef yu jógee ci liggéeyu groupement jigéen Fatick yi jigéen yooyu la sax sàkku taxawu ci ministre bi ñu dénk wàllum njaboot ak mbootaayu jigéen ñi Youssouf rajo Futurs Médias jërëjëf Youssouf ñu daal di wutali diwaanu Louga waxtaanee violence faite aux femmes métital fitnaal gi Abdoulaye Ndeke Khalil seen ndaa bokk ci ñuy dóoree foofee ca Louga du ñëpp waaye am na ñuy wéy di fitnaal jigéen ñi euh, moo waral soxna yi taxaw di kuréel gu taxaw ngir rek euh, daal di gindi soxna yi ci wàllu ak ak yelleef ak wàllu médiation civile ngir ñaax fa soxna yi Louga ñu gën a xam seen droit ba góor ñooñee nga xamante ni gisuñ ci jigéen lu may fitnaa ak dóor dakkal lu Khadija yi mooy coordonnatrice régionale bu boobee comité ca Louga ak Ibrahima Khalil Sène danoo dem ba xam ne dafa jot ndax tey méttal ci jigéen ñi bari na siif xale yi mi ngi fi nu xus suñu dëkk bi métital tam jëmale ko ci wàllu sëy diggante añuy aji den dencante mi ngi fi comte de violence conjugale ñoo ngi tàggat fanweeri jigéen ak juróom jigéen ñooñu nag dañ leen di dañ leen tànn ci ay quartiers yu nga xam ne dana xaw a euh, sore bu nga xam ne làmp yi eggagu fa bu nga xam ne mën a nekk euh, làquwaayu jëfkati njaaxum yi te dara du leen ci fekk léegi jigéen yi ni tàggat ëllëg ak si biir fekkee métital am na seen gox daañu xam ban taxawaay lañ ci mën a am ak yéen jéego lañ ci mën a dox ndax fekkee siif am na jéego ñu ci war a dox am na gunge bu ñu a gunge mooy danga koy yóbbu hôpital ba pare sooy dem ci yoon nga dem ci yoon def sa plainte fekkee nag beneen xeetu métital la muy wàllu aji ñuy dencante ñun dina bëri rek dem police di porter plainte ñun ay taskatu sëy dañuy jóg ànd ak ni ñu baax ànd ak kilifa diine de wax ak say mbokk wax ak say mbokki jëkkër wax sa borom kër ci boppam pour jàmm am Khadija Gueye bu Louga ñu des diwaan googee ak jigéen ñooñee nga xamante ni ay jàmbaar lool lañu nekk ci kër yi waañ wi rawatina kon di ñu mat a muñal waañ woowee nag di jafe léeg ci ñoom ndax euh, warum jën gu métti gi Louga jaaykat yi ci wàllu woowee ami jafe-jafe ngir kon mun a wàccoog clientèle di euh, client yi la ñuy sàkk ci ñoom li waral jafe-jafe bi mooy dencum jën gee jafe ci ñoom chambre froide dafa amul Ibrahima Khalil seen jafe na lool nekk jaaykatu jën ci jamono nawet gu ñu toll nii fii ci Louga. ñaari jën moom métti na trop trop trop trop ci côté yëpp nag. keesu jën bu ñu daan jëndee ñaari junni ak ñeenti téeméer tey jii nii ñu ngi koy jëndee ñeenti junni jàpp juróomi junni sa deex jaaykatu jën la ci marché central bu Louga. ba njëkk ci biir noor bi day dem na ay péré wax da nga daan dem ba jënd kees douze ba dix mille francs mais bariwul mais actuellement yaa ngi ci vingt cinq mille entre vingt mille trente mille vingt sept mille foofu daal la chiffre d'affaires bi nekk actuellement cher na trop. rax si dolli fii ci Louga amul benn chambre froide ñii di jaaykatu jën yi dañuy mujje di jënd lii di glace pour mën a conserver seen jën. nga moom lool mooy seen problème majeur conservation de poisson amuñu amuñu fenn fu ñu mën a conserver dara dara dara da nga mujj obligé frigo de fortune yi nga mujj a di jënd ay glace di ko toj di def di préserver say jën te loolu nekk loo xam ne ko na continuer éternellement ñi nga xam ne ñoom ñooy jigéen yuy ñëw marché di ndugg si ñoom tamit ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu tar pour mën a am lii di jën may mun a benn jigéen ñu fekk ko muy waxaale jën moom mii sax lu mu xalaat jamono ji mooy changer plat yu muy togg. par exemple maafe wala ceebu yàpp wala ay suppu kanja yaasa yooyu yëpp am na ceebu géej gi sax neex na wala ceebu kecaak. <laughs> Ibrahima Xalis Seen Louga. RFM. jërëjëf Khalil Sène ñu jàll tàllal wutali ndar jàll ba maatam ci bët gànnaaru Sénégal waxtaanee mbay meeg waaye li taw bee taxawandi jaaxal baykat yi waaye kilifa yi xereñ ci wàllu yokkutem kaw gi di développement rural ña ngay dalal xel yi maatam Ali Bandel ñam lu jege benn ay bés a ngi nii toqub ndoxub taw laalul suuf région bu ma mu di ab nag bi nga xam ni mu ngay bëgg a jur jiixi jaaxa ci bopp baykat yi nga xam ni noppi nañu seen jiw yu njëkk ya bi ñu génn ci weeru juin bi passé waaye nag bi ñu doxantoo ba ci direction régionale journal bi gàlloo wàllu développement rural xam leen nañ ni amul lenn lu fi xew ba ñu jara tiit yu Gueye mooy kilifa gi jiitu direction régionale développement rural bu Matam. taw bi nag dafa fekk ne ñun dañu koy euh, prévoir rek. mais ñëpp xam nañ ne taw moom yàllaa ko yor. Euh, fi mu ne nii taw bi mu tawoon nii béykat yi jiw nañu si kenn nuñ nu ñuy remarqué si àll bi mooy généralement surtout mille bi ñu observé levée yi ñu si observé amul benn problème parce que pause pluviométrique bu amee. jamono yi tam ci yenn périmètres yi nga xam ni sax dugub bi commencé na sax nemeeku nañ fa ay xeeti gunóor. waaye encadrement technique bi itam yëkkati na si ay kàddu di rassuré. lii xamante ne moo war a yaaxa jiw yu ñu jiw ba mu jóg. mooy euh, problème phytosanitaire tel collecteur bu ñu bu ñuy wax lema planifolis boo xamante ne day ñëw si. si dugub ji ah lekk xob yi. et puis euh, li muy lekk xob yi noonu bu taw bi reprendre rek maïs bi day reprendre donc loolu du si am effet. peut-être avec manque ndox mi. dugub ji dee te fi mu nekk nii am nañu ay cumul yoo nga xamante ne au niveau de. la région en ce moment matul ñuy inquiété wu am nañu nag dans la région ay poches pluviométriques lool du ñàkk ci région ak nu mënta demee baykat yi nekk ci diwaanu jéeri bi maanaam ñi dund ci mbayum nawet gi commencé nañu génnee kurus yi di ñaan yàlla ngir que taw bi mën a baawaan ñaan yooyu sax tàmbale nañ ko ajuma ji ñu weesu bi ñuy jëli tisbaar ci ay jàkk yu bari yi nekk fi ci diwaanu Matam mu nekkoon sa naataango Aliou Bandel ñaa fi ci diwaanu Matam pour wàllu reportage université ñu bari ci ñi am bacren seen xel demu fa muy daara yu kawe yi euh, ca lycée Blaise Diagne ñu fa jot a waxal nay bachelier yi bees ñoom di gën a xalaat wàllu école formation bokk na ci li waral ñàkk bëggati université gi grève yu dul dakk reportage Seydou Nourouba. ñu def ay groupe toog di waxtaan. non non. ñëpp élèves foofu ca lycée Blaise Diagne doog am seen diplôme bu baccalauréat waaye mu mel ne daal lii di université soxalu leen. dama ko mën a ci paat ah, dafa kii di ab élève di wax ana lu tax ñu bëri ci ñu am bac comme moom bëgguñoo dem foofu ca université ngir seen ñàng mu kawe. grève yi dafa bëri foofu trop trop li ñuy ñaxtu dafa bëri. voilà bëgg naa fa inscrire mais bëgg naa dem def formation finalement. université moom xalaatuñu ko waaye nag ab école de formation bu baax kii dooraam yaa mu ne moom du wax déet ci loolu jot na sax waxtaan ak ay waajuram. a ah, ñeneen moom moo gën a baax par bëri. ñu ñu am bac ñu ñu waxtaanal foofu ca lycée Blaise ne daal ñoom bu dee dañoo dem foofu ca université dafay fekk ne rek dañ fa bëgg def inscription wala ñu dem retirer seeni attestation wala diplôme. RFI wàllu sport ak Malal Junior Diagne maa ngi lay ziar Malal. Adja maa ngi lay delloo ziar bu wér. di la gërëm bu baax nag ci dalal gi ndar ndar neex na de waaye Thiès a ko xaw a dàq tuuti. <laughs> Ah, waaye am nañu am nañu dex de. am ngeen géej am ngeen dex am ngeen teraanga. bisimilah yaa ngi door ak wàllu basket Adja Sane final tey jii Coupe du Sénégal si jigéen ñi euh, diggante GIA ak Saint-Louis basket club lay doon. Euh, ci wàllu waa ndar yi nag ñeneen ñu daal wu bàyyiwuñu dara wàccaay gi lépp yembal nañu ko donte sax ni koppar yi euh, matewul woon waaye nag ku ne dugal nga sa loxo sa poos ngir fexe daal ba lépp yemb euh, bàcc Samba Diop moom mooy yore communication bu Saint-Louis euh, basket club. jafe-jafe teewul ñu def résultat teewul am performance donc loolu la ñuy jafe yi teewul xale ñu ngi liggéey ñu ngi takk seen takk seen sër wala takk seen tubay benn la. donc boobu ak léegi ñu ngi koy def. e am nañu yaakaar ne aussi bu ñu jógee si lii. Euh, jafe-jafe dina gën a mën a wàññeeku ndax xëy na jàppoon nañ ni kilifa yi wala ñi nga xam ne ñu leen di sollicité pour ñu na fet chef de jeunesse la te wax naa ni te gëm yaakaar ni Sénégal dañu war a taxawu jeunesse bi dañu war a jàppale jeunesse bi te jeunesse Ndar dafa soxla ñii day autorités ñu jàppale ta euh, taxawu ko euh, li nga xam ne mooy sport bi muy def mu nekk loo xam ne euh, dina nekk aussi beneen vitrine li nga xam ne mooy dëkk bi Ndar mën nañu xaar supporters yi ñëw ak doole waaw mën nañ ko yaakaar naam sax xëy na final bi euh, ni mu tëddoo dafa xaw a am nañu yaakaar ni am na suñu nar a jóge ndax bu ñu nit ñi jàppalee taxawuñu bii di ñëwaat mooy gën dàq am temps wu réfléchir a Ndar xam ne dañu nekk ci yaakaar nañ ñëw daal fi mu nii ñeneen ñi nag li ñu bëgg rek mooy amaat deuxième coupe ci jeexal nag seen saison si jàmm ak salaam xale yi nee nañu wàccaay nañu bu baax te itam waa GIA ñëpp ñëw nañu jàpp ci Michel Wassou moom mooy seen euh, entraîneur. ñun waa GIA ñu ngi waajal bu baax suñu final ndax xam nga dañu bëgg a jeexal suñu saison ci note bu neex euh, moo tax ñuy waajal bàyyiwuñu dara njabootu GIA yëpp nag daje nañu. ci waajal final bi jigéen ñi def nañ leen ci condition yu baax a baax a baax bàyyiwuñu dara entraîné nañu xale am nañu confiance jàpp nañu moral euh, ki ñuy joué di seeni parce que club équipe la bu mag a mag am na ay joueuses yu baax yoo xam ne sax mën naa wax ni am nañu niveau international waaye ñun suñu xale yi daal loolu di leen jaaxal daanu def ñu ko daaxoo ji def rek mooy ñëw basket ci ni mu gën a te euh, teg suñu jeu euh, doxal suñu programme du xool ñu ñu indi te fas ko yéene def dañuy liggéey ngir sotti ndax nag ñu am ndam waaye xam nañu daal suñu déglu ak Sané Basket Club ndax Sané Basket Club équipe la bu mag a mag. di jàpp ci wàllu football nag ak euh, première euh, demi-finale jëm ci wàllu coupe du Sénégal tey ji ci ngoon lay doon. ci stade bu municipal bu Mbour Touré Kounda moo fay ak équipe bii di Saint-Louis football centre daanu ko yeggali nag euh, ci ay bi bi ñuy dëkkmal boobu nag jàpp nañu ko. Euh, diggante équipe union sportive Ouakam buy dalal euh, Casa Sport mooy ñaareel bi euh, demi-finale jëm ci wàllub coupe du Sénégal loolu kon àllarba ji lañ ko jàpp tey dan jongante ci wàllub ñaar fukk ñaareelu journée wàllu Ligue 1 jàpp nañu kon ci tey si ngoon 18h Demba Diop Ouakam mooy union sportive Ouakam mooy jiitu mooy dalal GFC mooy Guédiawaye football club waaye laata loolu équipe bii di HLM mooy dalal ASC Dara ci ñaax fukk ak ñetteelu journée ci wàllu Ligue 2 ci ngoon. renaissance sportive bu Yoff ak Mbar Géej olympique bu Ngor mooy fekki Saloum daanu ko yeggali euh, dimance jeexal toolu bëre tey ji ci ngoon ñi nga xam ne waa Bawol production Assane daanañu jeexal seen saison Assane Ndiaye ak ñu mandal ca Bawol production daanañu tëgg kon combat bii di Lac Rose euh, mu war a laaleeg Aliou Mané ca stade Iba lay amee ñu jeexal ci démb euh, kii nga xam ne mooy Ama Baldé moom moo daan fëgg la jël drapeau Bécaye mbay Sa Thiès doomu Double Less moo daan boo sëy jël drapeau Alaaji Ngagne Ndiaye Euh, Malal Junior Diagne maa ngi lay gërëm fàttali ni seen émission lamb ji mbokk yi xam ngeen ni samedi ak léegi samedi ju ca ne ci kaw vacances yi dootu leen ko am ñetti waxtu ci samedi ji waaye ñaari waxtu dana ko yéegal ngir yéen amateurs yi ngeen bañ a taxaw ñett cay waxtu yi di xaar kon ñaari waxtu la incha allah suñu noppee rek ba mu teg ay minutes. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. ñu yegg seeg yéen ci nataal bi di leen xamale tey ak docteur euh, j'allais dire docteur Aliou Sow maître Aliou Sow ngeen baalu moo jiite conseil national de la jeunesse ngir xamee moom ñu ànd ak Mouhamed mu Mouba. avocat la mu nekk itam ku gëm mouvement associatif. en 97 président Diouf joxe woon fii grand prix du chef de l'État pour ndaw ñi ñun nag suñu association boobu kuréel boobu moo ko gagné woon. bi mu nekkee ci conseil national de la jeunesse ba léegi Aliou Sow euh, at ak ñaar def ngir joxaat gëdd conseil national de la jeunesse. conseil aussi nekk na kuréel boo xam ne lépp loo xam ne mu ngi aajo si wàllu jàppale ndaw ñi si xëy wala jàppale ndaw ñi si ñu gën a am ay possibilité pour liggéey wala ay possibilité pour banneex ndaw ñi ñu aussi loolu duñ ci fàtte li nga xam ne ni moom mooy lépp xeex jàngoro jàngoro ndaw ñi lu mel ni sida walla paludisme. ba léegi daanaka emploi bi yembugul waaye nee na am na ci bilan. si wàllu renforcement capacité maanaam yokk tàggat ndaw ñi si ay yorinu kuréel yi tàggat ndaw ñi également si wàllu doxalin kuréel yi. joxaat gëdd conseil national de la jeunesse moo tax Aliou Sow def discours bi mu def ci kanam président. président dafa soxla ku koy wax askan wi lu muy dund président tey. bu ñu ñëwee ba situation 23 juin ak 27 juin ñu toll si président soxlawul ku koy tàgg président soxlawul ku koy vraiment dugal si ay logique yoo xam ne du du nekk njëriñu askan du nekk njëriñam moom. tey li muy ñaan yàlla mooy su paree ci conseil national de la jeunesse demaat ci cabinet am continuer liggéey avoca jërëjëf euh, Alimu ñu jë njëkk seeg xalam euh, wàllu caada geek ndàtt gi. jërë jëf dal leen ak jàmm ci xibaaru caada ak cosaan yi ajjuma ba léegi ñi yëngutu ci wàllu musique traditionnelle ci wàllu culture di fàttaliku Yandé Codou Sène moom woykatu séréer bu mag bi mi ngi faatu woon fukki fan ak juróom ci weeru suleet ci at mi ñu génn Amadou Lamine Sall di poète di woon ndongo ci Léopold Sédar Senghor di indi seede ci woykat bi moom mu ni Yandé Codou dafay wéy di bokk ba léegi ci suñu patrimoine culturel national. waaw Yandé Codou suñ ko tuddee rek dañuy tudd Sénégal parce que bi ñu waxee ne Sénégal am na xalaat Senghor bi nga xam ne moo nekkoon le premier président du Sénégal te suñu xalaatee Senghor rek dañuy xalaat Yandé Codou euh, parce que Yandé Codou moo nekkoon ci wetam moom moo nekkoon géwélam comme ni ñu koy waxee. ba nga xam ne fépp fu ñu tuddee Sénégal fépp fu ñu tuddee Senghor dañ fay tudd Yandé Codou Sène kon nag Yandé Codou Sène dafa bokk ci ñun bokk ci patrimoine maanaam bokk ci ndono ñu pays ak nekk Sénégal kon nag moom kenn mënu ko fàtte kenn mënu ko fàtte parce que fàtte ko mooy fàtte Sénégal mooy fàtte ñun fan ngeen jóge ak ñan ñoo ñu gunge ba tey donc loolu moo tax Yandé Codou nekk koo xam ne dafa nekk ci milieu traditionnel sénégalaise nekk jigéen joo xam ne pour euh, fàtte ko bu muy nekk parce que tuuru Sénégal ak tuuru ci fàttaliku googu ak màggal anniversaire bu njëkk gannaaw ba mu dëddoo àdduna ak njabootam daal di ci amal ci ajuma ji ab bisub ñaan waaye tamit ab veillée culturel boo xam ni amal nañ ko ci àjjuma ji ñu fas yéene ko ndar keppe fii ci diiwaanu ko Ndakaaru ci théâtre national danielle Sorano ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru sulet ak benn soirée de gala boo xam ne nii moom lañ ko jagleel. samba ndéela njaay ma ca jam ya njaay hotee boo amee mu do njaay samba ba tey Pape Fall ak orchestre bi mu duppee Pape Fall et l'African Salsa di magal anniversaire u seen fukki at ak juróom benn ci wàlluk musique ci scène nationale ak internationale ñoo ngi koy amale ci maison de la culture Douta Seck ñu dem ba diwaanu ko Jurbel foofa wax ci mbirum caada ak cosaan capitalu Bawol mu mel ni wàlluk caada ak cosaan dafa nërmeerlu loolu la ko waral di yii di kilifa yi mu mel ni dañu joxul yitte bu baax a baax secteur boobu Mohamed Jo Diop doon artiste di yëngu ci diwaan bu jurbeel ba noppi mën a fësal sa talent doon na lu jafeñ région bi amul dëgg-dëgg ab agenda culturel li ko waxal nag mooy kilifa yi joxuñ benn gëdd ñi nga xam ñooy yëngu ci wàllu caada festival de musique traditionnelle bi nga xamee ne équipe bi fi nekkoon bu délégation spéciale bu conseil régional moo ko fi taxawaloon daanaka bi fa demee ba léegi amatul dara équipe bu yees bi nga xamee ñoo nekk ci bopp conseil régional bu Diourbel joxuñ ko benn fula ren sax Fesman moom moo ñëw jàppale leen ba tax ñu mën a organiser édition bu ren ci wetu ñi nga xamee ñooy waa conseil régional ak seen Fesmut am na ay initiative yoo xam ne a nit ñoo ko yëkkatil seen bopp mouvement hip hop bi am na li ñuy woowee festival Kayrap festival do USAID tamit mu ngi waaj a amal ñaareelu édition am Diourbel nekk gox boo xam ne caada am na fi solo lool waaye nag des na ñëpp ànd ci di puus mu dem ci kanam. si wàllu agenda culturel ñuy fàttali conférence de presse bi nga xam ni alliance culturelle africaine daañu ko amal ci samedi ji ñoo ngi koy amal nag ci dalub programme d'appui aux initiatives culturelles et créative du Sénégal ñu jeexale ci wàllu mbind di littérature ak cérémonie dédicace livre bi nga xam ni Diène Farba Sarr moom moo ko bind jagleel ko ki fi nekkoon jëwriñ ju njëkk di Macky Sall nekk tamit maire bu Fatick livre bi mi ngi ko duppee Macky Sall un combat pour la république cérémonie bi nag ñoo ngi koy amal ci benn hôtel ci VDN bi jërë geen jëf ci déglu bi xalam di leen jox daje àllarba bii di ñëw ci beneen numéro. matériel de bureau informatique salon électronique moo leen di may seen revue de presse master office ngir seen bépp jumtukaay ci bureau Assane Gueye président Abdoulaye Wade xalaat ba mu jubal keroog ci ndajeem PDS mi jëm ci élection yu nu ñor di di ay anticiper du xalaatu fowantoo de waaye bu ko ñor la bu mu togg ba noppi observateur xëy xamal ñu ko yéene bi ne mooy plan secret bu bees bu Abdoulaye Wade ndax nag ñaari dank fanaanal la yoroon benn ba mooy def élection ci ab bi nu jàpp di 26 février ba ca des mooy ñoddi ko ci lu gën teel ñaareelu dank ba nag la génne keroog observateur ne Abdoulaye Wade pare na lépp nag ndax xam na ni doole ja jeex na pexe jeex faw kon mu muusanteeg ñamu janool ngir jàll

dogal moom kese le populaire ne wàllu élection anticipée yooyu nag Benno Siggil Sénégal ànd na ca waaye ñu ne na fekk moom Abdoulaye Wade mu tekki ba noppi ndombal tànkam taala si la ci wàllu fajar yéenekaay ne Abdoulaye Wade daal jeexal na moom Abdoulaye Wade nag ci kàddoom keroog 14 juillet wax na fa nguur gu noppee bokk ak waa opposition bi ubbi leen ni buntam na ko du Diouf daan ko defee jëmee ci moom waaye foofee Sud Quotidien nee na ñoom lànkal nanu ko lu ni mel ndax dañuy bañ mbaxus bi lalu bi di enquête xëyee moom méga bi PDS di waajal 23 juillet yéenekaay bi ne ne benn milliard dana ci dem lépp ngir suul nërmeel gi leen fippug 23 juin gi nërmeeloon ndax nag PDS juróomi téeméeri junniy nit la bëgg a dajale ci VDN bi di militant yu nu fas yéene jële fu ne ci Sénégal boobee meeting nag ka ngànk amal geeg waajal gi enquête ne Souleymane Ndéné Ndiaye la ak Papa Diop Ousmane Tanor Dieng secrétaire général bu parti socialiste moom la yéenekaay bi di le matin fësale nataalam yéenekaay bi di waa PS bëgg mooy askan wi gën a yaatal gën a taral ñaxtoog fippu gi ci Abdoulaye Wade waxtaani kàddoom ci daaru muxti gënuy waajal màggal gi tey ëllëg ne naam xaarul woon lu bari ci kàddu yi Abdoulaye Wade waaye dafa mel ni moom Abdoulaye Wade la askan wi wane keroog nekk fippu ak bëgg-bëgg 23 juin tekkiwu ko xamu ko Ousmane Tanor Dieng ne Abdoulaye Wade moo wàññi nag ngëm gi askan wi am ci moom ndax moo ni wax waxeet ca loolee day tekki ne lu mu waxati neen la ca nag lu garaaw la ci président ndax président dafa war a sàmmi kàddoom ci biir état beeg penc mi Ousmane Tanor Dieng jàpp ne président mooy jëmmi république di jëmmi nation kon kàddoom lu ñu war a sàmm la Walfadjri yéenekaay moom fësale tey ak gëstu ci li tax étudiants yi rayante seen biir lu ñeel amical yi ndeke yëf yi li wolof naan mag muy naan ndox mu tàng suukar saa tax yëf yi daa ami ngëneel Walfadjri ne xaalis ca la ay avantage na ko noonu position politique seeni rak ñoom étudiants yi élèves yi def BFM ren la Soleil xëy xamal bi ne examen BFM googee 29 di juróom ñaar fukk ak juróom-ñeent ci weer wi di juillet lay doon gannaawaati ëllëg 31 juillet nag làmb ju mag Mouhamed Ndao Tyson Balla Gaye 2 ci Le Soleil Tyson ci ndam rek moo ko ñor waaye ci observateur Mohamed Ndao Tyson a nga cee xamle ne bu daanoo it mu jàppee ko noonee rek wax ji Balla Gaye nag de dëkkee jëmee ci moom mu ne dara day def communication rek Tyson xamle ko ci Walfadjri yéenekaay ci Walf Grand Place ba tey moom Mohamed Ndao Tyson ne bu keroogee 31 juillet Balla Gaye 2 dina am ab guerrier dëgg ci kanamam Tyson di xalaat nag xaat na muy feetoo ndam gi ci Kaolack ak Pikine mu ngi ci sunu làmb sunu làmb googee fësale ñi am ndam ba noppi nag démb Ama Baldé la ci kanamu fëgg la waaye Sa Thiès ci kanamu Ndiaye baaxee démb sunuy naatango El Hadji Bekay Mbaye bu 2STV Alaaji Ngañ Ndiaye bu groupe Futur Média RFM TFM Master Office moo leen doon may seen revue de mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon xibaar yi RFM njiitu réew mi Abdoulaye Wade ay kàddoom jëm ci élection anticipée gu mu nam noppee def Moustapha Niass njiital AFP euh, gëmu ko mu santuk politique la ko jàppee discours keroogam bi 14 juillet amul lu mu ca tënkee nepp solo euh, moom njiital AFP RFM Antoine Diouf jox ko ak moom ca Paris dégg ngeen ko ci xibaar yi élection anticipée nag terewul président bay démissionné bokkaat ca yoon terewu ko constitutionnaliste bi di Mounir Sy moo ko leeral xamle nag ne Abdoulaye Wade muy wax ndax moom jàpp na ne jeexal nay balam soxna Aïda Mbodj moom di wéy di sàkku dellu si waatug Macky ci biir PDS jàpp na moom soxna suñu denk jaboot geek mbootaayu jigéen ñi ne Macky Sall am na place ba tey ci PDS wàllu violence di fitna ak mittal jigéen ñi Louga ba tey ñu ngi ko fay dund moo waral euh, comité kuréel taxaw ngir ñaax jigéen ñi ci seen ak ak yelleef ci it wàllu médiation civile Matam moom mbay meeg tolluwaay li taw baa fa taxaw ab diir jaaxal baykat yi ñi xereñ ci wàllu yokkute kaw ga di waa développement rural dalal xel yi ne du ca dara dara la yàqul ci mbay mi ci technique bi Abdoulaye Diop El Hadj Assane Gueye ci micro bi fàttali leen ni seen émission lamb ji ci kanam tuuti 14h ñaari waxtu ngeen koy am ndax programme vacances gi boobe programme vacances bokk na ci RFM plage ñetti waxtu ca voile d'or Fatim O Papa Dia ak Abdoulaye Diop naka noonu soppeek auditeurs RFM yëpp féexlu ji ci bërëb boobe Abdoulaye Diop nag dafa woote moom maître nageur ñu ngi leen di gërëm mbokk yi euh, di leen bale geeg sunu gan gi ci lu yaatu invité grand format Abdoul Aziz pay mooy secrétaire général MRS mouvement républicain sénégalais laaj yi tukkee ci soxna Binte Diallo ñu yendu ak jàmm. grand formant di dalal tey ki nga xam ne moo jiite euh, MRS di mouvement républicain sénégalais monsieur Abdoul Aziz Paye lay wuyoo ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant di la gërëm. di lëmbe réew mi mooy euh, discours président Abdoulaye Wade bi mu amee la woon euh, bërki démb lan moo ci sa jàngat. ñun suñu jàngat ci waxu Abdoulaye Wade bi démb duñu wax sax président Abdoulaye Wade la ñuy wax parce que ay njoñam la woon di waxtaan ak ñoom ñun dañu ci wax nekk dañu d'abord dañu ne kan la Abdoulaye Wade doon waxal ne dañuy tontu ci loolu ñu ne lan moo war a motiver waxu Abdoulaye Wade bi parce que mënuñu comprendre li am fii yëpp ci réew bi mu woo ay njooñam di waxtaan ak ñoom donc naturellement ñu xalaat ni kii ñan lan la war a wax bi ñu ko dégloo après ñu ne kii est-ce que dafay wagg a wax pour éviter dëkk bi li fi xewoon bañ fi xewati parce que lu bëri xew na fii te xew na ci yeneen réew ba indi fa musiba est-ce que loolu moo tax mu bugg wax wala dafay wax pour waneen waa partem que ne man bu naa dem élection 2012 te dinaa ko gagné donc bi ñu ko analyser tënk ko on s'est dit que kii daal discours programme rek la doon def pour wax ak ay njoñam pour wan leen ne man li mooy sama programme et cetera et cetera mais les préoccupations majeures du peuple sénégalais moom euh, intéressé wu ko comme si on n'avait pas une la même lecture que les sénégalais sur les situations bi fi xewoon. ok ndax wax na ci ci ci ci xale yi nee na leen dina créer benn benn kii beneen kuréelati. boo xamante ne dina leen indi liggéey lu toll ci cent emplois. Mhm. loolu noo ko gisee. waaw xam nga xale yi moom foofu mu wax ci. parce que xale yi boo gisee mu wax ci parce que xam na ne wax na ko sax ne xale yee ma porté woon au pouvoir donc bi mu ñëwee dafa am lu ko waroon ak xale yi donc depuis dix ans su Abdoulaye Wade di wax ne fi mu toll nii tey jii en 2011 que ne dafay jël ay promesses installé au conseil pour l'emploi et la formation pour créer cent mille emplois euh, euh, programme bac plus moins bac plus ak 40 pour cent budget yi ñu consacré si éducation depuis boobu ba léegi waxoon nañ ko fi waaw loolu yëpp ba tey ji mu ñëw ne loolu ay programme la yu muy teg mooy lan lu mu war a lu muy wuntu loolu mooy wuntu nekk que Ablaye Wade politique euh, jeunesse am dafa échoué pendant les dix ans. c' est la lecture qu'il a eue mais il a pas de façon ouverte mais sénégalais yi war nañu ñi xel xam nañu ne dafa échoué moo tax mu ne léegi damay lancé programme bi pour jeunesse boobu. est-ce que loolu nag moom seen l'analyse analyse boobu ñun si lañ tombé ne kii échec rek moo tax mu wax lii mais ka nga xamante ne jox nañ la fukki at ak benn defoo loolu euh, du si juróom ñaari weer nga koy def ou bien beneen mandat beneen mandat beneen mandat nga koy def. Euh, lu mu ñu jàpp ci discours bi ci wàllu politique mooy ne euh, nee na bu fekkee opposition bi pare na moom mun naa anticiper élection yi. Mm-hmm. benn Siggil Sénégal nee na ñoom pare nañu. Mm-hmm. wante. dafa fekk ab Ablaye Wade day démissionné. Mhm. balaa moo def élection anticipée yéen waa MRS mhm. euh, ban jàngat ngeen am ci wàllu woowu lee xam nga démissionné beeg ñàkk démissionné beeg élection anticipée yi yooyu yëpp ay pour ñun ay waxi neen la parce que réew aussi il faut ñu respecter nit ñi nekk ci réew ma parce que élection yi ñëpp xam nañ ne février 2012 la kenn yàkkamteetul nañu xaar ba février 2012 juróom-ñaari weer rek ci des juróom-ñaari weer yomb na muñ ñu muñ ko xaar ñu egg ci loolu ñu def ko li ci des nag mooy day démissionné du démissionné c'est-à-dire que li ci am mooy nit mag kilifa su waxee ba pare ñun liñ ñu xamal de ci suñu biir cosaan mooy mag su waxee dootul dellu ginnaaw su mag waxee ba pare nag dellu ginnaaw man mag moomu dootuma toog di waxtaan ak moom parce que dootuma wax lu ma doy. donc loolu dañ ne d'abord du yoon donc ñun d'abord dañ ko xool ci moral ci valeur d'abord ñu ne lii du yoon kon kooku warut a war a mën a nekk candidat. parce que bu fekkee ne candidat bi ñu bëgg ki ñu bëgg jox Sénégal dañ ko teg ci ay yoon ak valeur loolu warut mën a nekk ndax tey jii de xaw ma Abdou Aziz Sy Dabakh Malick fu mu tëdd mais fa mu tëdd xëy ne moo ngay yëngu moom ma nga xamante ne ba Lamine Gueye deewee ci mën 1968 wax yam foo waxoon ay wax yu leer naññ la ne bàyyi da leen wax dëgg da leen jëf dëgg da leen yërëm askan bi bu la nit jox doole nga koy nga koy utiliser pour lor lor nit donc loolu ñun ñu ne ab Abdoulaye Wade warul teg candidature am en 2012 leen nag di ci des mooy na organiser élection yi dans condition conditions transparentes ki gagné ñu xam ne moo gagné ñu jël ko jóobal ko réew mi toog toog nag di ko xool seet lu muy liggéey ak lu mu dul liggéey. kon MRS waxul démission na eggali mandaawam ba ca waxtu wàpp àpp ba mhm. mu organiser élection yu leer. loolu ngeen wax waaw ba àpp ba mu organiser élection yu leer. leneen lu ñu ci jàpp mooy euh, <coughs> dialogue politique dialogue politique euh, wax nañ ko fi ndax fu réew mi toll. Mhm. Euh, waa MRS ndax d'accord nañu ci dialogue politique. dialogue politique bi moom it waxu caaxaan la pour ñun. jaloogee pour def lan fukki at ak benn kenn waxtaanul ñu bàyyi ba mu des juróom-ñaari weer ñu ne dañuy waxtaan waxtaan pour def lan. pour def lan pour yokk gouvernement bi yokk encore ay nit dugal leen si xëy na sax taayu gouvernement bi gën a yokk sargi yi gën a bëri. pour lan te yaa ngi xiif Sénégal yaa ngi mar. Sénégal yi amuñu nu mu tuddee courant non ñun loolu pour ñun waxu caaxaan fi mu nee lu waaye doon def na ca ne na ca wéy ñii war a opposé wu nañu opposé wu ñi war a gouverner nañu gouverner bu ñu demee nag ba ci cëppaa ndaw ga réew mi nga xamante ne moom boppam mu jël ay li mu moom jox ko kum benn doomu réew mi ñu xam ne kooku la ko réew mi jox ñu topp ko ànd ak moom liggéey réew mi mais waxtaan toog di élargir ay gouvernement élargi yeeg ay non loolu yëpp ay waxu caaxaan la cest à li ci am ba am mooy mag nit buñ la jiitalee xam nga luy yoon xam nga lu dul yoon élection yu transparente xam nañ ñu koy organiser gestion rationnelle des deux deniers publics xam na nuñ koy defee donc li la war na nga ko def rek ba mu mat sëkk ba nga xamante ne kenn du la mën a waxal dara mais doo def ba fii nga ñëw naan nit ñi ay ca leen ñëw ñëw toog nag leen ñu waxtaan waxtaan pour def lan waxtaan pour tappale parce que sénégalais yi loolu intéressé wu leen fi mu nekk nii leen intéressé mooy ñu régler leen seen ay problème mais toog di ay waxtaan ay waxtaan tappale loolu intéressé wul sénégalais kon MRS d' accord su dialogue politique. Euh, mën ñu si d' accord sax parce que looy dialogue ñoom ñi ne dañuy xëy na toog naan dañuy dialogue ñëpp kenn amu ci programme tey jii koo ci tënkoon ne ko yow lan ngay def lan nga pour jeunesse Sénégal bi du la ko wax koo ci tënkoon ne ko loo prévoir pour institution Sénégal yi du la ko wax yam xamante ne bu ñu koy xooloon ci programme MRS bu yàgg kon du ñu egg si que MRS waxoon bu yàgg ne gis nga président bi bu ñëwee suñu programme bu xade xasee ba ñëw constitution bi lañ koy def ne le président mënatul jiite benn parti ñu ne encore président bi bu defee ñaari mandaa kenn mënut a am ñaari mandat kenn mënut a am la ñu wax ñun kenn mënut a am ñaari mandat mooy bu ñu la bu fekkee dañ la fal 58 nga ñëw ba 63 ñu falaat la donc beneen élection bu amee mënatoo bokk waxuñu sax ñaar yu taxaloo mais kenn du am ñaari mandat boo xasee ba am ñaar rek doy na débat nga bàyyi yeneen sénégalais ñu ñëw liggéey. donc yooyu yëpp ñu ngi woon suñu biir euh, programme bu ko nit ñi saytu woon xay na coow yi nekk fii yëpp du fi am. xëy na coow yi yëpp gouvernement d'union nationale nag. d'accord leen ci tam. non d'accord ñu ci parce que c'est jeu de yooyu la rek. gouvernement d'union nationale jeu de euh, yooyu rek jox ma lii ma jox la lii et cetera et cetera Sénégal yi dañu sonn ci tappale bi tappale bi dafa yàgg ci réew mi il faut binta tappale bi dog ci réew mi il faut nit ñi xam ne dëgg moo war a taxaw lu baax ñëpp xam nañ ko lu jub ñëpp xam nañ ko nañu taxawal dëgg ci réew mi wuy si dëgg di jëf dëgg di wax dëgg ndax réew mi mën a am lu mu bëgg mais tant que ñu ngi nekk ci tappale di fo di di comment di di réew mi du dem fenn yooyu nag affaire xale la nañ ko bàyyi mag ñi nañu nekk ci leneen moo gën parce que ay nit duñ la jiital ba pare ngay def lu la neex loolu nit tegu ko ci dara yàlla sax nga jëkk a sib mais fàttali ne ñu ngi dalal ci invité grand format secrétaire général bu MRS mouvement républicain sénégalais ab Aziz Paye mm-hmm. euh, seen mouvement bi da bokk na ci euh, mouvement républicain sénégalais mm-hmm. parti la mm-hmm. euh, bokk na ci parti yi nga xam ne Senghor moom njëkk na ko fi autorisé ci réew mi ki dirigé woon di maître Boubacar Gueye nekkoon cousin ci ci Lamine Gueye léegi ay at teg na yow yaa ko jiite lan mooy seen idéologie ak lan mooy seen ambition ci élection yi di ñëw xam nga euh, parti bi moom ba ñu koy créer boobu si réforme constitutionnelle 1978 la jógee parce que Senghor moo toog ba si yàgg ne day def ouverture mais quatre courants de pensée rek mooy am courant libéral courant socialiste marxiste ak conservateur donc comme ñett yi ci des nit ñi jëloon nañ ko boobu rek ci desoon Boubacar ne naa ko jël mais bu ko Boubacar ne naa ko jël c'est parce que moom dafa yaakaaroon ne en fin de compte que warut mën a toog ci réew mi fii war fi in jëriñ réew mi te du dugg ci biir politique bi parce que dafa am sax nekkoon na ci mu nekkoon fi ministère de l'éducation ministre de l'éducation nationale sous l'ancienne fédération du Mali mais dafa am lu xewoon ci réew mi la nga xamante ne na xew biir assemblée nationale moom ak ay yeneen xaritam nga xamante ne ci woon parce que marabu yu bëri nekkoon ci réew mi dañ ne woon bu ci kenn dugg ñoom loolu sax moo taxoon ñu génn ci langue politique yi dem toog bi ñu toogee ba si yàgg nag ñu ne ñoom tamit est que war loolu war na leen parce que aussi yàlla may na leen kàttan may na leen xam-xam may na leen doole donc si yoon la euh, par déformation dañ naan naan ñii mooy dañuy rejeter modernisme ak bëgguñu ay non non non loolu mooy nekk nit ki da ngay jóge ci li nga am nga xam li nga doon d'abord ba pare li jóge ci feneen di ñëw nga xool ko saytu ko li ci baax nga jël ko boole ko ak li nga am waaw segg ko ak li nga am lu baax ngeen boole ko mën a tabax am réew parce que ñun loolu moo tax ñu dugg ci biir mouvance boobu la MRS moom gisul boppam ci formation politique yi fi nekk euh, ndax élection yi di ñëw euh, di ngeen lëkkaloo ak yeneen euh, mouvement citoyen yi nga xam bëri nañ fi lool bëgg nañu lënkaloo ak ay mouvement citoyen parce que élection yi moom danañ ci participer parce que ñu ngi liggéey liggéey bu mag depuis boobu ne tekk rek nekk ci suuf di liggéey di liggéey di liggéey léegi nag jot génn dafa jot moo tax ñu commencé génn nii sax di wax pour mouvement citoyen yi nga xamante ne ñi ma ñuy wax ñun les sans appartenance politique ñooñu dañu ne ñun ak ñoom a bokk parce que xëy na li ñu yor muy suñu programme dañ ko gisagul mais wóor na yàlla ne xëy na bu ñu ko gisee noo dañ naan ndekete lii am na ci réew mi boobu ba léegi ñu bàyyi ko nii jenc ko non lii nañ ko génne parce que lii moo war a mën a doxal réew mi parti politique yi nag bañu ñu ànd ak parti politique liggéey mais buñ kuñ ciy àndal tamit di liggéey na nga génne sa programme teg ko ñu génne suñu teg ko ñu xool lan mooy ci njëriñu réew mi parce que programme am nañ ko ñi am profession de foi nañu garder seen profession de foi ñi am programme nañu génne bu ñu demee ba d'accord ci programme boobu ñu war a tëral pour réew mi ñu jël ko jébbal ko askan bi ànd dem élection yi bu ñu gañee nag ñu xam ne ñoo gañee ñu jël programme boobu tëral ko parce que ñun loolu mooy suñu démarche politique parce que dañuy am une certaine cohérence parce que li fi xew yëpp daf ñu war a jàngal gis nañ fi ay coalition yu bëri gis nañ fi sax coalition bu porté Abdoulaye Wade au pouvoir waaye fu mu mujjee parce que teguñu ko woon ci ay charte yu leer teguñu ko woon ci programme bu leer ay profession de foi rek lañ ko tegoon loolu moo war mi ñu ne xale yi boo ñu ñëwee lii la def pour njàng mi lii la def pour seen wérgu yaram lii la ñuy def pour liggéey gi lii la def pour institution yi président bi lii la am keneen ki premier ministre bi lii la am et cetera et mi foofu la toll il faut qu'on naret quand même de faire des ñu di di jaxase di malancé di dem rek. Mhm. parce que loolu la sànq réew mi. MRS parti bu yàgg la waaye ñu bari xamuñu ko. ndax ngeen di def pour ñu gën koo xam. Euh, fi mu ne nag ñu ngi doon liggéey nekkoon ci liggéey comme ni ma la ko waxee liggéey di massifier parti bi mais incha allah rabi ndege mu ngi neex borom bi xëy na bu ñu weesoo koor gi danañ organiser benn conférence de presse invité si journalistes yi yëpp ñu ñëw toog ñu mën a waxtaan ak ñoom mën leen xamal suñu programme lan la mën leen xamal yan orientation la ñuy proposer pour société sénégalaise bi pour ñu mën si dugg dem. Euh, may fàttali ne euh, invité grand format mi ngi doon dalal euh, secretaire général bu MRS mouvement républicain sénégalais Abdoul Aziz Paye RFM mu ngi lay gërëm di la sant. waaw leen di gërëm leen sant Binta. publicité sur RFM. Mais si radio, où est mon costume J'ai un entretien dans une heure et cela fait une semaine que je l'ai remis. Chut, Bouba, j'avais trop d'habits à laver et les clients me fatiguent trop. Ils sont tous pressés. Je suis le seul à tout faire. aller chercher de l'eau, laver les bassines, laver le linge. Je n'en peux plus. Je n'ai pas le temps d'aller aux cérémonies familiales. C'est parce que tu ne veux pas vivre avec ton temps. J'ai une tante qui a une machine à laver Samsung chez elle et elle en est très satisfaite. Elle m'a dit qu'elle consomme moins d'énergie, que la machine lave plus rapidement et mieux. Je te conseille vraiment de faire comme elle. Équipe ta blanchisserie d'une machine à Et eh oui, si radio, il faut te simplifier la vie avec les machines à laver Samsung. Les machines à laver Samsung sont à partir de 179 000 francs TTC. Les machines à laver Samsung sont authentiques avec une garantie de 12 mois. Retrouvez-les chez CCBM Electronics dans tous les showrooms Samsung et nos distributeurs agréés à Dakar, Thiès, Mbourg, Rufisque, Tamba, Kaolac, Richard Toll, Louga, Ziguinchor, Kébémer. li ko dalee samedi fukki fan ak juróom-benn ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juillet di semaine bu ñu jagleel batimat di semaine tànnateef si wàllu carrelage am leen juróom-ñeenti fan yu dul dakk ak xéewaluk wàññi fanweer ba juróom-ñaar fukk si téeméer bu ne ak yeneen i neexal jumtukaay yu carrelage batimat di leen xaar si avenue Malick Sy ak 55 rue Moussa Diop ngir yeneen i leeral woote leen ci 33 889 63 63. batimat tout pour la maison du sol au plafond. Tokyo, Moscow, New York, Shanghai.

الله يتوفى الأنفس الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت saraxalaaw lazim njabootu Mariam Fall ci rue sept angle corniche njabootu Khady Fall ci rue sept angle corniche njabootu Ma Fall ci Pikine njabootu Ahmed Fall euh, Nderia ci rue sept Binta Gueye soxna la ci ki Fatou Moussa Dioma nga rue sept angle corniche Lalla Fall euh, ca Parcelles Assainies unité 2 Maynan unité 2 ci Parcelles Assainies la dëkk Kiné Diagne ma nga cité comico Khayrat Diop ca Nouakchott Binta Sow ca Pikine Abdoulaye Sow directeur euh, Fourquets euh, Fourquet euh, Dakar Samba Sow ma nga cité Lobat Fall Mam Sougou ci rue 7 angle 12 fii ci Médina njabootuk Ñaña Ndiaye ci rue 7 angle 6 Lamine Diarra rue 7 angle Corniche ñoo andi nangu dogalu borom bi léegal génn pàddina Lamine Diop ñu gën ko xamee ci turub Baxayda ci rue 7 Corniche génn àddina niki tey ci ndakaaru nañ ko jébbal boromam tey ci samedi gi uh, ca uh, Touba njabootu rahmatulah alayhi El Hadji Djibril uh, Guèye ak njabootu rahmatulah alayha takko li ci rue 23 angle 24 ci Médina madame Mame Sey Fall di soxna ci ki faatu ak njabootam madame Yacine Mbaye ak njabootam di soxna ci ki faatu Aïta Sène Diop nday biige ak i doomam njabootu rahmatulah alayhi seeni sow mi ngi Médina madame Awa Fall ci Médina na Awa Gueye dangu nord Rufisque ay Ba a nga dangu nord Tëngéej Eric Fatal ma nga France Ousmane Kay ma nga Espagne Bamara Bandia ci Médina ñoo am di nangu dogalu borom bi léegal génn pàddina Lassane Gueye ancien capitaine de mais génn àddina aljuma démb boru juróom-ñetti waxtu ci guddi ba mu jotee ba fegg fukki simili ak ñett néewam tey ñetti waxtu na bàyyi ko ca jàkki cëriñ bi ñu ca noppee jébal ko boromam ca sëgu jullit yi nekk ca Yoff bu fanweeri simili lay doon. njabootu rahmatullahi alayhi El Hadji Djibril Gaye ci Ndakaaru ak ca Tëngéej ci njabootu tàkko li ci rue 23 angle 24 ci Médina madame Mam Sey Fall soxna la ci ki faatu madame Yacine mbay soxna la ci ki faatu Aziz Dian ak euh, soxnaam Yaxara Sow Cheikh Tidiane Gaye Sacré Cœur Ousmane Gaye Dangu Nord Tëngéej Mamadou Gaye Dangu Nord Tëngéej Mariam Gaye ca koloban ci Ndakaaru Sambali Gibraltar ci Ndakaaru Amady Bokar Diaw ak soxnaam ci Ndakaaru maître Biram Sassoum Kumba Gueye ma nga gël tàppe ñoo andi nangu dogalu borom bi léegi génn àddina seen xarit seen ma warak seen euh, papa euh, seen euh, borom kër El Hadji Alassane Gueye capitaine à la retraite génn àddina démb ci boru 20 heures 30 minutes nag jébbal ko boromam la ñu namm tey ñetti waxtu ca sëgu jullit ya nekk ca yof gannaaw bu néewam bàyyi ko bu ñaari waxtu jotee ba fegg fanweeri simili ca jàkkay cëriñ Abdoulaziz Dieng euh, Fourat euh, auto centenaire rue 30 angle 35 ak mboolem personnel garage Fourat euh, centenaire fii ci Ndakaaru du Doudou Dianjeko mooy président amateur lutte Mamadou Touré ñu gën ko xamee ci lab garagiste la de sor foofee ca Mamadou Gassama garagiste la Médina fii ci Ndakaaru la dekk Jim Dieng mécanicien la moom ma nga rond point Liberté 6 ñoo an di nangu dogalu borom bi na yëgal génn dina Alassane Gueye capitaine à la retraite génn naa dina démb boru 20 heures 30 juróom-ñetti waxtu ba mu jotee ba fagg fanweeri simili ci guddi la ko def ne nag eh, ni ko jébbal boromam tey samedi ji ci boor ñetti waxtu eh, bu jotee ba tegali simili ci sëgu jullit nekk ca Yoff général Mamadou Seck ci ndakaaru njabootug Amady Bokar Diaw ci ndakaaru njabootug Armand eh, Ousseynou Diop ci ndakaaru njabootug Youssoufa Diakhaté ca Tëngéej njabootug commandant Ibrahima Thiam ci ndakaaru njabootug Sambali ci Gibraltar 1 ci ndakaaru njabootug Mamadou ci ndakaaru njabootug commissaire Jara ba Pay eh, ci Ndakaaru njabootug Banja ci Ndakaaru njabootug Mbay Ndooy ca France njabootug colonel Mor Sène eh, ci Ndakaaru njabootug Furu Ba ca Mbuur njabootug Abdoulaye Diaw ca Mbuur njabootug eh, Mar Ndiaye ci Ndakaaru ñoo andi nangu dogalu borom bi léegi génn pàddina capitaine Alassane Gueye génnaat dina démb ci Ndakaaru ne néewam tey samedi ñaari waxtu bu jotee ba fegg fanweeri simili ci kanam tuuti kon dana bàyyi ko ca jàkkay cëriñ fii ci Médina buñ jébbal ko boromam ca sëggu jullit ya nekk ca Yoff ñi faatu yal na leen yàlla xare àjjana te yéexe ñu fa yumsiku allati qadaa alayha almawta wa yursilu al-uxra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun Ndeye Famy Diatta Tendeng Koli Sambou Manga Sossou Sousso Sousso donc Diop Faye Diandi Bassène Mendy Sagna Badji Silva Laït Ngom Diagne Sy Gueye Diouf Gomis Soumaré Samb Djibon Fonseca Ndong Diédhiou Diémé par un et allié ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, Rosine Tendeng, survenue le juillet à Dakar. à h à l'église des Parcelles Assini. L'inhumation au cimetière catholique de Bel Air, priez pour elle. communiqué, le mouvement citoyen Vision Rufisque invite tous ses membres et toutes les populations de Rufisque, en particulier les jeunes, à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour prendre part au présidentiel de 2012. Cet acte citoyen est un préalable à une participation active dans la vie de la cité et de la nation. Pour Vision Rufisque, le coordonnateur docteur Oumar Cissé a euh, signé donc ce communiqué ci ndigalug Serigne Sidi Mokhtar Mbacké xalif général ku li murit Serigne Moustapha Saliou Serigne Mountakha Serigne Ahmadou Mokhtar euh, Serigne Abdou Karim Serigne Abdoul Aziz euh, Mbacké Daarul Tanzil ay magam ak i góor ak yi jigéen ñoo mbégte yëgal mbokku jullit yi mbokku taalibe yi màggalug Serigne Moustapha Abdoul Aziz Bara Mbacké ca Touba Tanzil samedi lay doon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet di méngool ñaar fukki fan ak benn ci weeru baraxlu ñu ci woo mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ci boobee euh, màggal gu am solo ci ab waay la bu xam ne. dafa réerle walisam euh, Marc Lancel euh, ne nag bu marron bu chocolat maanaam bu amoon euh, ci biir saag wa ci biir walis ba saaga amee bu ñuul Marc Kees ne nag ci biir saag ba ba léegi amoon na mbuus bu weex bu amoon ay yére ordinateur portable la nga ci woon taxi la ko fàtte taxi ba nag mu ko jëlee woon aéroport ngir ak moom ca Mamel démb booru une heure du matin kon la ko lii dal muy sàkk ci taximan bi ak képp koo xam ne dugg na ci taxi bi gisal ko walisam bi mu jokkoog moom ci ñeenti numéro yi benn bi day def 77 246

à 573 01 53 77 573 01 53. kii ab xale lu réer la toll ci juróomi at xale bi dafa ñuul euh, tout tànk la sax juróomi at la euh, ne mu ngi woy turub Serigne Fallou Samb dëkk ca Touba ne dafa jóge kër najaayam Samba Sarr dëkk ca Cambérène de fii ci Ndakaaru wetu terminus minibus yi villa numéro 72 xale bi nag képp ko xam ne gis na ko ay waajuram a ngi sàkk ci yow ngal la waaye nga jokkoo ñoom ci ñetti numéro yi benn bu fixe la 33 ngay def 855 11 60 33 855 11 60 ba ca des

benn waxtu ci digg njoloor gi jot ba wees juróom fukki simili ak ñeent maanaam juróom benn simili moo tere siiw ñaari waxtu ci studio Eva Mbaye Ami Soumaré fi teewoon doon leen jukki livre sandi ci kayitu yëgle ak i tàgge bàyyi leen ak Vince mu wéy ak yéen ci programme rajo Futur Média ñaari waxtu journaliste yi teew fi tënk xibaar yi ci français wala fu des leen ci rajo Futur Média. Idrissa Seck sur RFM et sur TFM. Les émissions Le Grand Jury et Si on en parlait reçoivent le maire de Thiès, ancien Premier ministre. La présidentielle de ses relations avec Abdoulaye Wade, va-t-on vers une alliance avec Aminata Tal, la sortie du chef de l'État l'autre jour à l'hôtel des Almadies, ses relations avec l'opposition et plusieurs autres sujets. Idrissa Seck sur RFM et TFM dans Le Grand Jury et Si on en parlait dimanche 11h10 sur Radio Futur Média, 20h30 sur TFM. Kane général MRDS bokkit ci Benno Siggil Sénégal ak Alioune Dia bu Alliance Soppi pour toujours doon it bu CRC ñile ñaar la Daouda Diouf fas yéene géewal dimanche géew bi 14 ba 15 ñu war a jàngatandoo kàddu Abdoulaye Wade yi candidature am bi élection anticipée yi muy wax ak yeneen i poñ géew bi ci rajo Futur Média Daouda Diouf di dalal Alioune Dia ak Imam Mbaye Niang 14h ba 15

too me and my girl was having problems You used to say be okay Suggest little nice things I should do when I go home at night and lay my head down All I seem to think about was you How you make me wanna leave the one a new with you make me, you make me The one with open relationship with you. This is what you do. No, I don't even know the things that come along with you. Make me, you make me. I was bad. Cause you're the one that hooked us up. No one should have been you. And what's sad is that I love her, but I'm falling for you. What should I do? Should I tell my baby bye bye? Should I? through exactly what I feel inside. I, I don't wanna go, don't need to stay, but I really need to get it together. Make me wanna leave. Oh, I'm waiting. Ooh, baby. Relationship with you. Say what you do. Think about her when you know the things that come along with you. Make me, you make me wanna wait. Ooh, baby. Relationship with you. This is what they do. bottom, you know things are the situation's out control. I never meant to hurt her, but I gotta let her go. And you may not understand it, what all of this going on. I tried, I tried to the feel is too strong. They make, make me.

giving you all things that come along with. You make me, you make me run with. Ooh, baby, relationship with you, this is what you do. The bottling and all things that come along with. You make me, you make me wanna run with. Ooh, relationship with you, this is what you do. The bottling and all the things that come along with. You make